seen actualité euh, muy euh, mise en circulation li nga xam ne nag moo di euh, BRT bi nag mercredi ginnaaw communiqué bi nga xam ni CETUD daal dina koy génne est-ce que tey jii xaara woon benn audit ci li nga xam ne nag moom moo di BRT boobu. xam nga BRT bi. Mhm. je pense que effectivement ni nga ko waxee noonu la xam nga ku ndomin rey sa maam. Mhm. boo gisee lu ñuul da ngay daal di daw. Mhm. wala boog comme ni ñu ko waxee ñu ne faqat daw. parce que Sénégal dañoo am autoroute à ñu jóge fa ñu ne BRT. autoroute à gis na scandale bi ça n'appartenait pas au Sénégal. est-ce que gis. c'est la France qui l'exploitait. BRT ñu rafetlu ñëw bi ndëgal maanaam BRT terre. ñu rafetlu ñëw bi ñu naan terre bi nii ainsi de suite c'est joli c'est beau c'est bien pour le Sénégal. mais ça n'appartient pas au Sénégal. c'est un scandale scandale boo wax nañ ci. Hmm. gars yi génn nañ def joxe explication bu nekk. Hmm. mais sénégalais mënuñu ko gëm. si munoo ne yow man Sénégal boo jógee rek nga ne dépensé naa tant de milliards. Hmm. ci terre tant de milliards ci beer ci euh, nu mu tudd péage. alors que ces milliards là yow defoo ci les milliards keneen moo ci def milliards di ko exploiter di ko di ko yóbbu réew. c'est la même chose avec la BRT. ah un scandale. scandale boo xamante ne dañu ko camoufler de sorte que. am na lu bëri loo xamante ne doo comprendre et sénégalais mënuñu ko comprendre c'est encore les français ça veut dire que ñun suñu grand axe yëpp tey la France contrôle et n'oublions pas euh, le chemin de fer bi ñëw c'est la France également qui est donc tey ñun suñu axe yëpp tey ñu koy gérer mooy la France. mooy bay bay dañuy xëy rek benn jour France ne bloqué leen axe yëpp mooy ñu bloqué axe yëpp mooy terre bi taxaw péage bi tëj berte bi tëj chemin de fer tëj c'est une pression sur le Sénégal berte bi ndax tax ma ne la c'est un scandale gis nga dañ ne dañ ne d'abord. c'est un financement de cent quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-quatre milliards de francs fa loolu la ñu jaay soit deux cent quatre-vingts millions d'euros donc cent quatre-vingt-quatre milliards de francs fa loolu la ñu jaay ñu ne pour réduire la mobilité durable alors ñu ne financement BRT bi bon banque mondiale moo ko évidemment banque mondiale moo ko approuvé ah euh, le 25 mai 2017 banque mondiale a approuvé ko mais ce qui est grave c'est que <laughs> euh, là di nga xam léegi danga comprendre lu tax France mu ngi comme contrôlé gis nga BRT buy daw nii lépp liñ fay am ci xaalis fukki dërëm boo ko amee soixante dix pour cent yi mu ngi génn réew mi soixante dix pour cent cest à cent francs boo ko jëlee soixante dix yi mu ngi génn réew mi France a ko moom comme nga bu baax li nga wax. téeméer boo ko jëlee. Mhm. juróom ñaar fukk ak ñeent. Mhm. wala juróom ñaar fukk yi. Mhm. mu ngi génn réew mi. mooy tey jii bu ñu jëlee exemple deux cent francs cent cinquante yi mi ngi génn réew mi fukki dërëm mooy des ci réew mi. fukki dërëm moo xew ci BRT. trois mille personnes yiy jël BRT bi tous les jours nañ jàpp ne. la dugal ci BRT bi. mu ngi génn réew mi ngi dem bitim réew. parce que ki nga xamante ne moom mooy Méridiane moom moom moom soixante dix pour cent yi nga xamante ne moom mooy li fi nekk. Méridiane mooy entreprise bi defal. mooy entreprise française Méridiane. Mhm. ñu créé benn kuréel bi ñu woowee Dakar mobile mobilité Dakar mobilité lañ créé ñu ne léegi dakaar mobilité boobu. Mhm. moom mooy gérer BRT xam nga Dakar mobilité boo ko déggee. Mhm. da ngay ne da ngay ne Sénégal la. Mhm. nangu ñu def Méridiane ñu def dakaar mobilité gis nga njuuy bu ñuy def. Mhm. boo ne Dakar mobilité ñu naan non c'est Dakar. fekk Dakar moomu ko. xam nga dangay ngay defan Dakar ko moom wala Sénégal moom ñu ne non Dakar mobilité. Mhm. mais soixante dix pour sent yi. Méridiane moo ko moom. Méridiane moom laalewul ci terre bi. Méridiane ci financement bi. ñoom ñoo bokk financement ainsi suite et parce que ñoom ci loolu la ñuy yëngu. ñu ne léegi 30 pour cent yi FONSIS moo ko moom. Mhm. FONSIS mooy fonds d'un fonds fonds d'investissement souverain bi nga xamante ne nee nañu Sénégal moo ko moom à cent pour cent. Mhm. Sénégal moo ko moom. Mhm. banque la boo xamante ne Sénégal la ñoom Macky Sall la ko créé. bàyyi ko fi ñu ne boobu Sénégal la ko moom à 100 pour cent. mais loolu Sénégal nan la ko mën a moomee à cent pour cent. ak nañ lañ koy doxalee. boobu dafa war a leer 30 pour cent yooyu kan ak kan la FONSIS kan la bokkal. FONSIS kan moo ko moom ñan ñoo bokk ci capital FONSIS. loolu lañ waxul alors boo demee nag ci capital bi. di nga xam ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw wala kii ak kii ak kii ñoo ci bokk. Mhm. booba la ñuy xam exactement ndax lii mu ngi dugg Sénégal wala duggul Sénégal. mais dañu ne rek 30 pour cent FONSIS et que FONSIS 100 pour cent Sénégal a Sénégal moom moomu ko ñu ne Dakar Mobilité c'est une société sénégalaise détenue par Méridiam. Méridiam. <laughs> et le fonds souverain d'investissement ah mi réunit cent trente cinq millions d'euros ci euh, ci xaalis. Mmh. xam nga Méridiam leer na moomuñu ko. Mmh. moom moom daanaka xaalis bi yëpp. li ñuy gagné. xam nga loolu pour combien d'années. pour quinze quinze ans. du deux ans trois ans de. pendant quinze ans li muy daw xam mercredi lay commencé. Mhm. à partir de mercredi ba fukki at ak juróom. Mhm. téeméer boo jël. Mhm. soixante dix yi ma nga jëm ca ca France. man daal Diomaye jeex beneen président ñëw. beneen président <laughs> ñëw daal di man ba Diomaye day def mandam dix ans. mu dem président président bi ñëw mu def cinq ans ba dernier euh, kiyam bi. la ñuy la Sénégal bi commencé di. di di kii di di di di encaisser xaalisam mhm. mu koy dugal ci gafaga loolu moo nekk liberté ñu ne Méridian a été fondé en 2005 mhm. par Thierry Deo avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs publics et privés peut apporter des solutions aux besoins essentiels des collectivités. Mhm. Méridian kon Thierry Deo nekk français moom moo moom ñu ne Méridian est une entreprise française indépendante spécialisée dans le développement le financement et la gestion des projets d'infrastructure publique mmh. créée en 2005 ngi nee na ñu ngi Europe Amérique ak Afrique mm-hmm. kon mmh. c'est une société bien française absolument c'est pas une société sénégalaise mm-hmm. donc les pour cent vont donc à Méridian mm-hmm. comme c'est le cas avec ak autoroute bi. Mhm. comme c'est le cas avec TER bi ak l'autre société française mhm. bi BRT avec la société Méridiane mhm. ak li nga xamante ne moom mooy les chemins de fer ak beneen société française boo xamante ne moom moo fa yëngatu. donc c'est pour vous dire aujourd'hui que voilà nous ce que voilà voilà où moo tax su ma déggee ñi naan Macky Sall a fait des réalisation mais léegi lii xam nga li bokkul ak budget bu Sénégal. nekku ci budget bu Sénégal. waa léegi lu tax ñu taxaw fi ñu naan su le budget d'investissement bu Sénégal mhm. on va nangam ak nangam ak nangam ba si tudd ay BRT. Mhm. tudd ay TER ainsi de suite alors que lii bokk ci budget mhm. lii diw moo jógee fële eh, def investi di xaar retour d'investissement. Sénégal noonu lañ doxalee en fait on naa rien réalisé dafa mel ni yow nga yor sa tool. ma ñëw ma ñëw sa tool. ma ne la fii daal maa fi dugal bugg naa dugal sa tool. deux mille francs ma def investissement ci sa tool tool bi yànji rafet nga woo sa mbokk yi nga ne kaay leen xool sama tool rafet na ah, def na nii yànj na def na lii ñu dem ba ci récolte ba ba ñu ba ñu ba ñu góob ba pare ñu dem sa kër sa kër fekk la ngay jënd xaal alors que yow dañoo jógee sa teel sa tool fekk fa xaal yu rafet yu bëri ndekete xaal yooyu yow béyoo ko yow moo ko man maa man mi ngi fa defoon sama xaalis man jël naa sama xaalis yëpp yóbbu naa ko léegi yow yaa ngi dem di jënd Sénégal foofu lañ teg Sénégal. Mhm. malheureusement. te loolu jàpp naa ne bokk na ci li nga xamante ne moom mooy. Mhm. la souveraineté bi ñuy woote. Mhm. mooy que tey Sénégal dafa war liggéeyal boppam. mais également ñu bañ di ñu bañ ñu bay di tayle. mooy joxe. mooy jox la nga exploité après. ci base boobu ngay fayeeku mhm. loolu dafa war a jeex vraiment et récemment j'ai vu la sortie ministre euh, des mhm. dem ca Kédougou euh, maa ngi naan Kédougou may Matam Matam ci phosphate yi mhm. mais am yu ma fa dégg ñii di ñii di wax lii ñi la di wax lii ñii di naan il faut faire le point il faut il faut il faut des audits ainsi de looy audit loo xam ne audité nañ ko ba pare mu ngi fi Somiva dañ ko audité dañ ko audité pare le ministre des finance mm-hmm. dama koy wax rapport douane bi nekk sa kaw table. Mm-hmm. jëm ci wàllu SOMIVA. Mm-hmm. génne ko parce que la fa ne. xaalisu sénégalais yi la. les six mille six les les cinq cent milliards six cent milliards la fa ne. xaalisu sénégalais yi la dañoo exporté sunu phosphate ca jaaw ñu dañ ko war a fay. Mhm. dañ nag di exploiter au niveau de la de de Ndendori Hamadi Hunaari waali Jala ci terrain boo xamante ne moomuñu ko keneen ak moom yëfu jàmbur la. Mhm. jaay doole la loolu yëpp mu nga ci rapport bi le ministre de finances na génne mhm. rapport bi ndax wax naa ko la dernière fois. dañoo ko tegoon ci table ministre bi nga xamante ne moom moo fa nekkoon. mooy Moustapha Ba. nangu ko exploité parce que tout simplement dafa am ñoo xamante ne dañoo ŋànkoon nguur gi ñoom ñi ngi woon ci biir. waaye tey ñoo ñu jóge nañ fa ñeneen ñëw nañu nañu génnee rapport bi le rapport doit je réclame le rapport de la douane sur la SOMIVA c' est des sénégalais qui ont été exploités. Mm-hmm. c' est des ressources sénégalaises qui ont été exploitées. mais que le Sénégalais n'a pas vu le produit de l'exploitation de cette usine. Mm-hmm. Les phosphates sont une ressource naturelle. Mhm. Et les ressources naturelles, la loi est très claire, appartient aux Sénégalais. Mmh. Ressources naturelles, ça appartient aux Sénégalais, au peuple. Le peuple doit aujourd'hui bénéficier des retombées de nos ressources. Mhm. kon loolu dañ ko war a indi te encore ce sont les Français. Mhm. ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. Et la SERPEM qui est une société sénégalaise. bafoué parce que ils sont sénégalais parce que ñoom Macky sal yoo seen yoo nekkul woon ci entreprise sénégalaise fii ku fi nekk entreprise sénégalaise nga xëccoo ak entreprise française dañ la fiy jëlee teg fa entreprise française loolu dafa war a jeex te jeex na rapport douane je m'adresse au ministre de des finances c'est un rapport qui peut aujourd'hui renflouer les caisses du Sénégal Birame Souleye le ministre de mines du pétrole yor na rapport bi wala boobu bu ko yorul na laaj le ministre des finances mu génnee rapport bi bu ñu génnee rapport bi dinañ xam ne véritablement y a eu un carnage au niveau des phosphates de Ndendori. mais aussi si ñu nu war a foofu est-ce que aussi duñu auditer waat parce que euh, ñu nu war a indemniser euh, nombre bi su ma juumalee ngi toll ci 1800 euh, est-ce que nombre bu nekkul parce que duñu auditer waat encore ñu nu war a foofu. foofu on foofu indemnisation cest à balaa ñuy def ay indemnisation ainsi de suite. ñu génnee rapport ba pare. c'est-à-dire nañu leeral d' abord li kii li muy li muy jëlee foofu lan la. Mhm. cest à nañu génne d' abord est ce que moom war na ko exploiter benn. Mhm. li mu exploiter foofu lu tax mu génnee ko réew mi te douane yëgu ko. Mhm. loolu nag ay milliards la nañu jox suñuy milliards loolu la ñu réclamer. nañu jox ay suñuy milliards yu ñu yóbbu. parce que li may wax ni man inventé wu ma ko douane inventé wu ko douane def fa def li nga xamante ne moom mooy ces investigations def li nga xamante ne moom mooy utiliser tous les moyens de l'État mhm. utiliser des moyens colossaux pour que mu am un mu am ce ce rapport la mhm. def des enquêtes pour que ñu am ce rapport la il se trouve dans ce rapport mhm. aujourd'hui que benn société sénégalaise moom lañu ñu beddi parce que je le dis et je le répète moom dong moo fi am décret datant de 2011 pour l'exploitation des phosphates de Ndendori c'est la SERPEM c'est une société sénégalaise gis nga man damay sot ku ma bëgg ci loolu nga bëgg ma ku ma bañ ci loolu nga bañ ma man damay sot damay sot pour les sociétés sénégalaises tey su ma la gisoon ngay xeex beneen beneen beneen nit dama lay sotal parce que tu es sénégalais je suis sénégalais parce que je suis fier d'être sénégalais que je défends aujourd'hui les produits sénégalais les sociétés sénégalaises parce que ñoom dong ñoom ñooy mën a tax ba tey ñu am un développement bi nga xam moom la ñu xaar. absolument donc jàpp naa ne tey le rapport est sur la table du ministre de finances. boo ko fekkul foofu. bu fekkente ne kala fa kan kan fa fekk dafa randal rapport bi na ñëw ma jox ko. walla mu laaj douane ana rapport bi douane dina ko ko jox je l'interpelle en direct. Mhm. le ministre des finance c'est le plus gros scandale wax naa la ko. Mhm. suñu ressources yi parce que les mines la c'est un scandale la preuve gis nga la dernière la la dernière semaine bi ñu bi ñu bi Cour des comptes épinglé les ICS. Mhm. mais le patron qui bu dëkk fële xaw ma fan. mais dafa daw ñëw. Sénégal pour ñëw xool lan la parce que il sait que ses intérêts sont de train d'être menacés. Mhm. yéen xool leen intérêt sénégalais seen intérêt rek ngeen di xool seen intérêt kese ngeen doon xool. ngeen bi bañ les intérêts sénégalais du peuple sénégalais ICS boo fa demee dëkk yu nekk foofu da ngay defee ne ñii dañoo walaakaana parce que tout simplement ils n'ont rien même pas accès à l'eau alors qu'il y a une usine qui est là-bas donne qui produit chaque jour des milliards et des milliards ils sont même pas capables de construire un petit forage pour ces population là Mmh. Vous imaginez? Et c'est dans ce pays que nous sommes. Et ce pays-là aujourd'hui qui a besoin loolu moo tax ñu voté ñoom Ousmane Sonko. Mmh. c'est pour que ñu apporter le changement adéquat et je pense tout simplement que ce changement va intervenir et très bientôt mm. et pour ça il faut aujourd'hui que ñu génnee le rapport de la SOMIVA mm. la douane bi mu def ci la si SOMIVA mm. ñu génnee ko pour apporter la lumière on n'a pas besoin d'enquête ainsi de loolu après la mm-hmm. mais actuellement li nga xamante ne def nañ ko te mu ngi ci table bi mm-hmm. mooy d'abord nañu génne rapport ñu ne ah yow lii ak lii ak lii ak lii. Mhm. ba pare sénégalais bi nga xamante ne moom moo ko moom ñu delloo ko la sénégalais. parce que sénégalais boobu bu ko exploité woon du génn réew mi nii. ci ci ma ma ci comme ça de manière euh, de manière désordonnée. Mhm. ñu koy jël di ko génne parce que au moins lui il sait que il est sénégalais. fii la mhm. dëkk mais xam nga jël jël société. Euh, gars yi loolu la ñuy def ko mhm. c'est-à-dire dañuy créer dañuy jógee fële indi seen société def Sambou Biagui directeur général est-ce que ça loolu dina tax mu nekk sénégalais. société sénégalaise. Mhm. loolu nekk mu nekk sénégalais sénégalaise. Mhm. mais mu nekk une société boo xamante ne sénégalais moo ko créé. sénégalaise moo ko sénégalais moo ko moom et que banque sénégalaise yi ñoom ñooy utiliser les dividendes ci société boobu. mais dans le rapport même il est dit que cette société. à utiliser de l'argent placer de l'argent dans des banques sans passer par les banques nationales alors que loolu UEMOA moom moo ko la commission de l'UEMOA moom moo ko bañ c'est une c'est une loi c'est une charte c'est une recommandation au niveau de l'UEMOA mhm. pour que société boo ko créer mënatoo tëb suñu banque yi di dem ci beneen banque mhm. parce que loolu mooy la tu participes à tuer les banques ah, locales mhm. donc vraiment je réclame formellement je réclame très fort le le rapport de la douane sur la SOMIVA mhm. pour que waa Ndendoori waa euh, Waali Jala mhm. waa Hamadi Hunaare waa Fuuta mun ci gis seen bopp mais mhm. tant que c'est comme ça mën nañ réclamer lu ne mën nañ fi wax lu ne mën nañ rey ñoom ba ginnaaw suba mën nañ def lu ne la population du ci gis seen bopp parce que foofu aussi kuy njiit mooy les maires ñoom ñooy njaag ak l'administration l'administration doit être là ba pour le peuple et pas pour les sociétés encore une fois mhm. mais aujourd'hui muy les maires muy l'administration je parle du gouverneur du préfet entre autres mhm. il faudrait qu'ils milite pour la population mhm. il faudrait qu'il soit au, du côté de la population mais je ne peux pas comprendre mm qu'une société muy muy dans aux ICS ainsi de suite dans les mines à Thiès ainsi de que des sociétés ñëw c'est la même chose aujourd'hui ci même ci foncier bi. Mm-hmm. c'est parce que y a des préfets dedans y a des sous-préfets dedans y a l'administration territoriale loolu yëpp dafa war a jeex. Mm-hmm. ils doivent être aux côtés de la population. parce que c'est des administrés. Mm-hmm. c'est l'administration locale. boo ne gouverneur c'est le président de la République dans la région. boo ne préfet c'est le président de la République dans le département. boo ne sous-préfet c'est le président de l'arrondissement. parce que le président de la République ne peut pas se déployer un peu moo tax on a créé ces ces ces ces ces ces cette administration là mais cette administration dafa war a nekkal la population ah aujourd'hui c'est malheureux de le constater par exemple dans le Matam que je maîtrise mm-hmm. le Fouta que je maîtrise la localité de Ndendori mm-hmm. que je maîtrise la localité de Hamadi Hunaare que je maîtrise la localité de Wali Jalan que je maîtrise ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di dee ci li nga xamante ne moom mooy l'exploitation de des de des phosphates de Ndendori mm-hmm. mais nga exploiter en même temps la population la population ne peut pas se retrouver dans ce que tu fais la population aujourd'hui qui perd ses champs à cause de ça mënatoo bay mënatoo sa sa jur mënatul dund ñaati jur ñooy faatu par par par par jour par an par par weer par an ñaati personne ñooy am laago am ay feebar yu bon yoo xamante ne mu ngi jóge ci ndox mi. Mm-hmm. ndox moo xamante ne dans la zone tu ne peux pas boire ça comme ça mu jóge ci teen wala mu jóge ci robinet wala mu jóge ci forage nga naan ko impossible. Mm-hmm. aujourd'hui ils sont obligés de vivre avec de l'eau bi nga xamante ne mu ngi jógee ci ci ci boutique yi ngay jënd. mais loolu du ñëpp ko attan. Mm-hmm. ba pare ngay jóg nga ne léegi la population spoliée ku nekk maa lay jox famille bu ne maa lay jox quatre-vingt-dix mille ñii kuñ jàpp. vraiment. mais les gens se moquent de mhm. mais uude nu mu la gisee. noonu la noonu la lay ëwalee. absolument c'est parce que euh, gars yi fi nekkoon. Mhm. noonu lañ gisoon. ñoom ñoo meloon noonu. Mhm. ils étaient trempés dedans ils étaient dans le deal. ils étaient dans les dans les magouilles loolu moo tax aujourd'hui euh, voilà gars yi di def leen neex. mais dama la ne. dama la koy wax fii je le dis. Ndendoori. Hamadi Unaare. Wali Diala c'est une bombe à retardement si on tarde à réagir. Mhm. parce que les populations am na fu ñuy tollu mhm. ils ne vont plus accepter. parce que je le dis encore une fois. Mmh. c'est une ressource naturelle. Mmh. qui appartient au peuple. Mhm. et l'État est là pour le peuple. et j'apprécie. très sincèrement la visite du ministre. des mines dans la zone. c'est déjà rassurant. Mmh. Rassurant parce que sa permet mmh. à comprendre à la population que l'État suit. Mmh. Ce par n'était pas été le cas. Vraiment. Ce par pas le cas auparavant. doo ko fa gis fu ñu leen gisee rek mooy fi ñuy séddoo affaire yi. foofu leen di gis moo tax ñu bi ñu génnee rapport bi ñun teg ko ci rapport bi rapport boobu mujjul fenn. mujjul fenn ka ko ka ko déposé directeur ba ko déposé da ko déposé tey ëllëg sa sur le lendemain ñu dàq ko. ñu ne ko yow d dañu dañu xañ suñu hmm. ko foofu. l'actuel directeur de la douane l'actuel directeur de la douane mmh. il doit mettre la pression sur le ministre des finances donte le c'est son c'est son patron mhm. mais on doit activer pour man ce dossier le rapport de la douane vraiment contre la la la mhm. très important euh, en tout cas ki nga xam ni moo di euh, ministre des finances euh, dégg nga message bi nga xam ni Euh, moom la daal di euh, jagleel fii en tout cas waa euh, Matam Nord ñu ngi daal di xaar rek nu daal di lijjanti mbir moomee en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di loru ci exploitation bi aussi ñoom ñu ngi toog di xaar li nga xam ne nag moom mooy seen wàll alors beneen actualité muy daal di waxtaani mooy ci wàllum politique ak parti bi di APR ñoom ñu daal di woote li nga xam ne nag moo di remobilisation pour xool nañu def bëgg na yeesalaat li nga xam ne nag moo di boobale parti